gis nga depuis ci suba ba léegi ñi ngi ànd ak yow ci bëccëg yaa ngi sargal jigéen ñi pour le 8 mars bii di ñëw ñu gis ne ngoon gi yaa ngi defal sabar bu am maanaam macha allah sabar bi lan moo ko waral. waaw sabar bi la ko waral mooy li ma la rek dugg ma si suba ba léegi man aw ma lul sama waa koñ aw ma lul sama waa gox. lépp loo xam ma ko defee rek dinañ kontaan dama koy def waaw su ma cëg fi lañ nekk ñu def le 8 mars bi ñu sargal si jigéen ñi macha allah guddi gi jot ñu def émission ràcc bi lépp rek bëgg suñu waa koñ te des na nag suba incha allah subay daal. waaw ñu gis ne waa yëmbal tey ñëpp wàcc nañu wuy si la euh, ban yëg-yëg nga am daawa. non yëg-yëg bi am moom foor na lool macha allah parce que lii yombul yaakaar naa ne luy ay sees moo gën a yombul luy ay nit dëgg neexul ñëpp bari seen yitte yëpp ñëw ànd ak man ci bis bi ah ma macha allah daal sama xol dafa tooy dafa dama kontaan macha allah damaa kontaan trop. macha allah a ko déggandoo Ndeye Awa nee na amul dul waa Yëmbal moo tax mu def defal leen lii Ndeye Awa bu baax a baax damay xool sa invité yi rek ndax macha allah ba Pikine. looy teg nii. jóge ba Pikine def seen délégation ma ànd ñoom la bokk ak ñoom parti bi muy APR nekk COSER ñu bëgg ma fonk ma bëgg a dee kii sama mag la bëgg ma ba nga ni lii la lu ne mu defal ma ko tey ba ma ko gisee damaa kontaan tey damaa kontaan macha allah ndax déplacement bi mu def jóge ba Pikine ñëw ba yëmbal wuy si ma sama kanam yi mbokk dama damaa kontaan boole ci na damay daal xool marraine yi rek lan lan ñu indil.